aywa ñu fàttaliku taarix ci wàllu politique bis na tey euh, ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru sattumbar atum 1958 euh, référendum bu siiw boobu euh, ngir l'indépendance et non ou non des colonies françaises d'Afrique noire loolu nag France moom dafa organiser woon référendum boobu loolu nag taxoon na ba colonie yooyu daal di wax nag ci li nga xamante ni si moom mooy seen bëgg-bëgg ci wàllu woowu ñi gëstu ci wàllu taarix itam wax wax nañu taxawaay bi ci euh, euh, Charles de Gaulle amoon ca yooyee jamono ñëwoon fii ci Ndakaaru muy nag visite boo xam ne euh, bari woon na coow lool mu ñu xoolee itam si on interroge l'histoire dañuy gis les porteurs de pancarte ak nañu taxawoon jàmmaarloo moom ba mu naan bu leen bëggee indépendance jël leen ko duñ ci sori bokk na ci li ñuy fàttaliku tey ñu seetaan ko dellusiwaat ñaar fukk fan ak juróom-ñett weer septembre atum 1960 si la Sénégal dugg ci kuréelu mbootaayu xeeti di ONU juróomi weer gannaaw boom amee indépendance am ñaar fukk fan ak ñaar ci weeru décembre atum 1959 secrétaire général bu ONU di Cioda bi di Dag Hammarskjöld moom amaloon ab ci Sénégal fàttali na Sénégal moom dugg na ci biir ONU ci jamono joo xam ni réewu Mali amal na lu ni mel doon ñaar réew yu bokkoon fédération du Mali ñaar fukk fan ak juróom-ñett ci weer septembre atum 2012 ñu supprimer Sénat waaye it poste vice présidence de la République. moom it conseil économique social et environnemental ñëw remplacé ko fukk fan ak ñaar ci weer septembre atum 2012 fàttali yi nag ñoom daje woon nañu ci session extraordinaire ngir yeesal constitution bi moom moon ci teewaayu ministre de la justice ba woon di Aminata Touré ñu teg ci juróom ñaar at moom Aminata Touré jiite CSE remplacé fa Aminata Tall ñaar fukk fan ak juróom-ñett septembre atum si le musicien américain bi di Miles Davis génn àdduna moom mi nga xam ne nag turam dëgg mooy Miles Davis III mu juddu ci ñaar fukk fan ak juróom-benn ci weeru mai atum 1926 ca Alton doonoon compositeur trompettiste bu jazz muy des ci taarix fàttali ne na àdduna ca Santa Monica ba mu amee juróom-benn fukk ak juróom. La politique du Sénégal clairement définie s'est fixé trois objectifs qui sont dans l'ordre où elle veut les atteindre. l'indépendance ñaar fukk fan ak juróom ñetti weer septembre atum 1958 Sénégal ni wii kon ànd ak de fàtte fàttali ne jamono joojee France mu ngi doon laaj ay réew nata yi des ci biir communauté franco-africaine Sénégal vote ba ñu amal 97 virgule 55 pour cent ànd ci waaye ci Afrique noire Guinée Conakry bu Sékou Touré moom moo tànn ni kon day am indépendance am mu doonoon référendum goo xam ne nag juróon na coow ak it campagne ga nga xam nit euh, général de Gaulle amaloon na ko ci Dakar ña yoroon pancarte yi bokk na ci Mbaye Jacques Diop jàkkaarloo ak moom Seydou Diouf moom mi nga xam ni kon jege woon na lool kii di Mbaye Jacques Diop di delsi ci ndem si yàlla député waaye it maire bu Rufisque bi. président Mbaye Jacques Diop. Euh, bu lay nettali 1958 euh, ak jamono ji ko précédé ndax Mbaye Jacques Diop engagement militant am yàgg na bi mu amee 17 ans. 16 euh, 17 ans déjà congrès constitutif des jeunes du BDS à Louga il a été partie prenante bref trajectoire am dafa dafa nekk ci jamono jooju ànd ko ak ay mag ñu baax ñu nekkoon ci réew mi ay ay kàngam yoo xam ne bi xeex jotee pour Sénégal moom boppam dañu duggoon ci xeex boobu xeex boobu nag ñoom dañ ko defoon fidèle à une ligne boo xam ne dañ ko tracé woon euh, déjà fii ci salle des fêtes bu Tëngéej euh, nga xam ne réunion bu metti amoon na fa ba nit ñi sax fidèle à la pour l'indépendance immédiate dañuy génn dem que tonton Gabin Guèye créer le PRA Sénégal avec un manifeste à l'appui la même ligne bi UDS RDA section sénégalaise dem di con participer au congrès de Cotonou président Bajac Diop bokkul woon sax ci délégation bi euh, mais euh, par le hasard de l'histoire Euh, le professeur Assam Seck, qui était membre de la délégation, a eu un empêchement familial, le président dem foofu dem foofu les jeunesses africaines, toutes sections africaines réunies de, du SRDA se sont retrouvées. Nous sommes d'accord que réclamer l'indépendance euh, immédiatement. yor seen ay pancarte le 26 août 58 ñi di wax moom sa réew ñi la di wax jot sa réew. créé woon sax association pour ñu koy commémorer ndax date bu am solo la ñu war di doon sargal at mu jot benn kàngam ci Sénégal koo xam ne fer na avancé suñu démocratie réew euh, tey jóge na fi euh, moroomam yi ñu ko séqaloon ñu ci bëri tey yàlla moom na leen ñi fi desandi donc ñoom tonton Elimane Ndour ñoom tonton Nguirane Ndoye euh, ñu ngi leen di ñaanal yàlla bàyyi leen fi yàgg moom nag mu jaadu tey ñu koy wax parce que histoire ak parcours ci assemblée nationale parcours am ci monde des élus locaux parce que bokk na ci njëkk xeex pour décentralisation ci Sénégal euh, ak parcours am pour la lutte pour l'indépendance loolu lépp tax na ba ak li mu accompagné ci ay doomu Sénégal may leen douce euh, fàttaliku président Mbaye Jacques Diop am na loo xam ne war nañ ko ko tuddee ci réew mi pour que ñëpp di mën a fàttaliku le parcours de ce grand homme ak li nga xam ne defal na ko réewam. Ils veulent l'indépendance. qu'ils la prennent le 28 septembre. L'indépendance, que les porteurs de pancartes la prennent mu nekkoon Seydou Diouf euh, jege ñaale kenn ci porteur de pancarte yi dëddu na euh, muy dem si yàlla Mbaye Jacques Diop ñu ngi koy wax Chérif euh, ci wàllu politique référendum boobu quand même mu nekk une page large et intéressante ci histoire politique bu bu Sénégal on se rappelle le fameux discours de val Valdiodio Ndiaye yeneen porteur de pancarte Elimane Ndour le père de Youssou Ndour ak ñeneen ñoo xam ne quand même joué nañu rôle bu am solo ci mbir moom bi léegi. waaw muy lu am solo parce que Sénégal surtout en général réew yi nga xamante ne ñoo nekkoon ci AOF jamono yooyu ñu ci bëri en bëgg noonu ñu moom seen bopp ci wàllu li nga xamante ni moom mooy wàllu indépendance ndax nooteel gi jàppoon na ni yàgg na moom nag bi mu ñëw fii ci Ndakaaru ku ne xam na te ñi ko fi waroon a teertu Léopold Sédar Senghor ay ñoom Mamadou Dia mais danoo amoon ngànt nekkoon foon wal joojo muy le fameux discours bi nga xamante ni place Protet tey ñu koy wax place de l' indépendance fa lañ doon mobilisation bi nga xamante ni kon gis ngeen ko fees na dell ay ndaw nag nekkoon na ci comme ni ñu ko waxee ci jamono jooju Maître Mbaye Jacques Diop ci la bokkoon yaa ngi koy sànq tudd na fi Ngiraan ndooy Ngiraan Ndoye moom mooy papa ci Alioune Ndoye mi nekk maire bu Dakar Plateau ministre bi dégg wàllu environnement ay ñoom Elimane Ndour ñoom ñëpp amoon sax seen benn association boo xamante ni chaque at bu jotee ñoom porteur de pancarte yi dañ koy daal di célébrer fi nga xamante ni quand mooy euh, ville bu Dakar ci maire am taxawaay bu am solo bi nga xamante ni mm. taxaw na ko ci moom it gis nga sax Seydou Diouf ci témoignage yi mi ngi doon wax moom sa réew jël sa réew ñi nga xamante ni Pra Sénégal ñoom it nekkoon nañ ci ngir rek kan moom seen bopp googu ci wàllu li nga xamante ni moom mooy wàll politique ni mu ko waxee nag noonu la moom homme d'état la bu mag moom maître Mbaye Jacques Diop ndax euh, yàgg naa nekk député maire bu Tëngéej nga xamante ni quand même bokkoon na ci quatre communes yi ci jamono colonisation comme ni ko doon waxee moom sax am na benn slogan bu mu doon wax naan toujours élu jamais nommé maanaam parce que la ko mës a dégg bi mu fi doon jiitee CRAES mooy moo fi remplacé woon conseil économique social environnemental mm. naka Abdoulaye ma delloowaat muy mu amoon fii jenn ban problème créé woon na fi parti tamit euh, entre les deux tours bi nga xamante jóge woon na ci parti socialiste donc li wax noonu la il faut quand même ni mel quand même jaadu woon na ci réew mi am loo xamante kam war nañ ko ko mandargale te nag mhm. nañ ko njëkk tàmbalee ca dëkk ba mu dëkk quand même muy Rufisque ndax lu nekk def na ko fa mhm. rawatina kon municipalité bi quand fa cëngee rek war na faa am dara maintenant nag sur le interministériel donc c'est normal ku mel ni Mbaye Jacques Diop aussi mu am benn édifice public boo xamante ni quand même war nañ ko koo mën a tudd di fàttali moom it ci weeru septembre sax la génnoon àdduna muy 11 septembre. Euh, alors te ñu ñu euh, Marcel rapidement laata dem ci xibaar yi. waaw je pense que pour ñi nga xamante ne personnalité yi nga xamante ne jot nañ euh, def li nga xamante ne moom mooy taarix ci ci ci réew mi avant même l'indépendance. Mhm. jaadu na à l'exemple de maître Mbaye Jacques Diop. Diop ñu euh, ñu rendre leen mhm. euh, euh, comme ni ko Chérif waxee même si le combat n'a pas été <laughs> remporté sur le champ. Mhm. ci li nga xamante ne mooy accession à, à l'indépendance parce que mhm. on se rappelle que le a été de enfin on se rappelle si on interroge l'histoire 97,55 pour cent de de de oui ñoom pour le oui et ñuy fàttali que Guinée moom tamit ñoom ñoo nekkoon l'un des deux territoires Euh, principaux yu yoo xamante ne seen parti politique dañoo defoon dañoo battoon campagne ngir fexe ba euh, mm-hmm. mën a am immédiatement seen seen indépendance au final ce sera la Guinée euh, moom mooy nar a am indépendance am sur le champ en 1958 donc le premier pays d'Afrique francophone boo xamante ne d'Afrique de de l'Ouest en tout cas francophone boo xamante ne jot na am indépendance am donc mu doon à la suite d'un référendum mu doon instauré tamit la la cinquième république la cinquième république française ginnaaw loolu ñuy fàttali rappelé que le général de Gaulle avait fait une grande tournée jamono jooju mm-hmm. sur le continent africain lu mel ni Madagascar euh, Algérie ak tamit euh, réew Tchad à mm-hmm. N'Djamena et puis euh, Brazzaville tamit à Brazzaville même où euh, foofu la ñu indiqué woon euh, général de Gaulle ñu bindaloon ko benn manifeste boo xamante ne ñu doon laaj ñu ñu ñu inclure li nga xamante ne moom mooy le droit à l'indépendance ci ci biir constitution ci constitution bi ñu naroon voté mm-hmm. donc mu di li nga xamante ne tamit dañuy laaj tey njeexital bi ci continent africain quelques années après les indépendances le débat je pense qu'il sera encore toujours là lan lañ ci jot am lan moo ci avantage yi lan moo ci inconvénients yi tamit mm-hmm. donc voilà quelques années après. jërëjëf merci beaucoup Marcel 7h18 ñu dem léegi léegi ci xibaar yi ak.